mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM di leen dalal jàmm ci émission gox bi tey ñu am fas yéene am gan bu mag mun nañ ko waxee noonu mu di Ndeye Codou Ndiaye nekk conseiller technique ca ministère euh, des collectivités territoriales développement et de l'aménagement des territoires nekk itam njiital plateforme fédération Calabas les Linguères de l'émergence nekk itam actrice de développement ca commune bu Bambilor madame Ndeye Codou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. maa ngi lay fay Mbemba. Mhm. Euh, di am kontaan di ñëw di teew fii si réew mi FM. Mhm. Euh, partager ak yéen émission gox bi. Mhm. Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax. buñ nee calebasse. ñu bari dañuy réeree mbir ni calebasse calebasse lan mooy calebasse de l'émergence tey lan nga ñu mën a wax ci kuréel gi nga xam ni yow jiite nga ko te lu dul lenn ngi di sukkali ñi nga xam ni ñoom ñoo di jigéen ñi gën leen inciter ci wàllum développement ndax mun nga ñu wax lan mooy concept boobu plateforme Calebasse de Linguères de l'émergence Euh, waaw wax ci plateforme euh, de la fédération des calebasses les linguères de l'émergence yomb na. <laughs> ndax nag euh, seen parcours yàgg na yàggul. Mhm. depuis octobre 2016 lañ ko initié. Mhm. waaye li tax ñu instauré ko rek fii ci suñu réew. Mhm. mooy jàppale jigéen ñi. naam ay jàmbaar lañu yàgg nañ ci développement. mais ñu ne nañ leen apporter leneen lu bees muy une valeur une valeur ajoutée. kon loolu. Euh, pour fixer leen la ñu bàyyi natt séddoo ñu ne leen ñi xam ne dañ koy boole impliqué suñu bopp ci biir bëgg a xuus dem ci autonomisation bu ñu nattatee ba pare naam dina am lu ñu séddale pour jàppalante waaye dina am loo xam ne dañ ko fi bàyyi seet loo xam ne dañ ci capacité wu loo xam ne dinañu suqali gox yi commencé ko ci suñu bopp mu dem ci gox bi dem ci goxaat yi loolu nag bu ñu jëlee symbole leket mhm. muy calebasse mhm. ñu xam ne luy law la mhm. lu ñu bëgg a pérenniser la ñu jël concept calebasse jigéen ñi daañu toog chaque semaine daañu toog chaque weer waaye dinañu def rassemblement yu mag chaque at kon loolu moo tax ne comme dañu fas yéene ànd ba àjjana il faut li ñuy dëgmal ñu ut ci prétexte muy calebasse jubluwaay bi lan la l'autonomisation de la femme et des jeunes ndax buñ nee femme rek xam ne yaay moom moom doom <laughs> demu ñu bàyyi suñuy ndaw <laughs> ndax nag suñu njiitu réew ki nga xam ne dafa bëgg Sénégal il faut ñu tudd ko <laughs> ndax kër boo ci jaar da ngay jaaree ca borom kër ga ki nga xam ne moom moo ñu def sa cible prioritaire ne si à l'horizon deux mille trente cinq lii nga xam ne dama koy wóoyal muy plan Sénégal émergent sama yaakaar visé naa ci femmes yi waaye visé naa ci ndaw yi te nag jigéen ku ko sas rek mu laxasaayu ba dëgër. Mm-hmm. wane ni mën na dara. Mm-hmm. loolu nag moo tax. Mm-hmm. ñu tege ko noonu. da ngeen ko teg ngir jàppale ñi nga xam ni nag ñoo di jigéen ñi ak ndaw ñi yéen ci yan fànn ngeen di aw pour euh, jaar jubbanti ñi nga xam ni nag ñoom ñoo di jigéen ñi ci wàllum développement bi. waaw fànn bi mooy li ma wax léegi. prétexte bi ñu teg. xam nga olof dani baax ci ñëpp baax na. waaye baax ci sa bopp moo gën. gis nañ ni jigéen ñi. commune bu ñu mënti nekk. ñu ngay góorgóorlu. waaye kenn jéemul xam. ndax am nañu kayit. kenn jéemul lijjanti. naka la ñuy def ba jàppale borom kër yi. Mm-hmm. waaye liñ ci ëpp liñ ci seetlu. Mm-hmm. mooy lan la jigéen ñi mën ci ñoom. Mm-hmm. bu fal jotee ñu ñëw fal leen. bu tàcc jotee ñu ñëw tàccu leen. bu rassemblement amee ñu jëmmal seen bopp. président kontaan ci yooyu njiit. daal leen yokkal seen i grade. mais jigéen ñi duñ ci gis seen bopp. te amaan na koo ci woo doo ko jot. amaan na koo dem këram doo ko gis. ndax vigile fa nekk. man leen nag on ne peut compter que sur yàlla dem mën nañu sedd njiit yu baax naam. Mm-hmm. mën nañ leen jàppale. Mm-hmm. waaye nee naa baax ci ñëpp baax na waaye baax ci sa bopp moo gën. Mm-hmm. te pour nga wan leen yoon l'État. mu def administration. il n'est pas oral. il est plutôt écrite. l'administration elle est plutôt écrite mhm. bu ñu boolantee mhm. calebasse boobule mhm. ñu xaatim ko ñu am seen i PV seen i règlement intérieur am seen statut wane ni ñi ñoo toog ci bis bi pare nañ pour ànd suqaliku jàppalante di waxante dëgg loolu na kayit googu muy statut juridique tey jii dina mën a tax ñu mën a am ay projet tënk seen xalaat ni lii la bëgg président ak ay ñoñam mhm. ak ay partenaires de développement ak ay acteurs am mhm. ñu accompagner programme boobule mhm. ñu mën ci gis seen bopp waaye du tee jàppale ñi nga xam ne ñoo ne ca gox ba comme kilifa su ma la déggee mooy maanaam kalabaas yi ak natt cinq cent wala téeméer yi dafa wute lan moo leen wutale waaw wute na parce que natt bi dafa nekk développement communautaire waaye ba tey identité personnelle bi daf ci gën a feeñ. Mhm. Mhm. parce que ku ci nekk da nga naan dama natt. Mhm. su bis bi ñëwee. dama koy jël. dërëm du ci manqué. mais fii dañuy boole suñu alal. di promouvoirante. am patience. solidarité bi ñu koy liggéeyee. moo ko fësal. ndax da koy jox jëmm. su ko defee bu ñu dajalee lii ne am nañu sàngam. ñu lan lañ ci mën a def. ba nga xam ne buñ ko. yaatale mhm. ñëpp dinañ ci gis seen bopp. Mhm. mu lawaat jëm ci askan wi. Mhm. donc su ma la déggee gox ak goxaan yi yéen yéen a ngi fay dem di sanc ay calabas yu mel noonu ngir gën a mën a autonomiser jigéen ñi ci wàll wi ni mel. waaw ci fi ñu am répondante. xam nga point focal dañ leen sollicité. waaw du da ngay jóg ñëw instauré ko rek forcer ko nit ñi. sanc nit ki moo koy gis. approche bi neex ko mhm. mu jege la mhm. nga sensibiliser ko mhm. mu yóbbu def démultiplication ci ay ñoñam ba seen xel dal ñu ñëw intégré ko c'est une communauté ku ñëw nag di nga adhéré soo adhéré ñu njukkal la ca leket ga la ngay fay yee sa statut juridique soo paree nag ñu mën la teg ci yoon mhm. di la encadrer mhm. ci ay formation mhm. jéem a uti financement doonte nag capacitation baa ëpp njëriñ foofu ndax en général jigéen ñi bëgg nañu financement lool mais dama leen ki leen financé moo leen dang-dangiloo donte mënul ñàkk mais xam-xam bi yaatal bi delloo bi ah loolu mu ëpp solo

628 86 86 bu ngeen duggee mën ngeen joxe seen xalaat ci li nga xam ne moom moo jëm ci émission gox bi di leen fàttali ni rek ñuy dalal madame Ndeye Koumba Ndiaye nekk conseillère technique ca coopération fële nga xam ne moo di ci ministère des collectivités territoriales du développement ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. yal na yàlla mhm, jërëjëf tur bi ak foo ni woowee. Alimatu dëkk commune Jaxaay mhm. di leen nuyu bu baax a baax jërëjëf ah di dalal euh, sunu présidente plateforme boobu les Linguères de l'émergence mhm. muy Ndeye Codé Ndiaye mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara nag di kontaan ci liggéey bu am solo bi muy def ah di wax ni waxuñu sax ci quartier yi muy liggéey mais li muy liggéey ci département bi moo ëpp ah di nga koy nuyu bu baax di ko wax ni. Mhm. liggéey bi am na solo. Mhm. ah invité bi ñu ko invité tamit euh, mhm. kontaan nañ ci bu baax. a baax a baax jërëjëf ah di ko ñaanal fa mu bëgg yóbbu fédération bi yal na ko yàlla jàppale mu eggale ko. ndax mu ngi leen di financé. waaw tubaarkalla macha allah ñun jaxaay moom dañ bu nu amee financement. Ndeye Codou Ndiaye moo tax laa Linguère. mu dugal fi diggante vingt ba vingt et un ba vingt sept. mu dugal fi ay millions yu bari macha allah. Mm-hmm. ñuy sant yàlla bu baax nag ak nag te yemul ci loolu kese nag. Mm-hmm. sampal ñu sunu leget ñuy liggéey. Mm-hmm. ah di jëriñante sunu biir. indil ñu ay partenaires ñuy ñëw di liggéey ak moom. te laaju ñu bénéfice laaju ñu dara. di ko sant di ko gërëm mel na ni waa commune Jaxaay dañ la sollicité nga dem sampal leen seen leket ba jàppale leen ñoom itam ñu mën a suqali seen bopp. waaw macha allah tabarfakal la kii di woo woote. Mhm. alimatu daf ma bëgg ba maa ko gënal ay bëtam yal na ko yàlla fay ma ko waa jaxaay mhm. ndax ba ma koy seeti maa ngi fa fekk cent vingt femmes. Mhm. njëgu attaaya sax joxuma leen ko ndax boobu ragal naa ci nañ may sollicité te bëgguma ñu teg ànd bi ci intérêt. ndax nag dama ne nikki boo ko bëggee jàppale da nga koy jàppale ci lu mu bëgg. ñun yàlla moo ñu nattu ñu bëgg Sénégal. dara ñoruñu lu dul Sénégal ak sénégalais yi. ñu ñëw nag nekk ay ndaw. Mhm. yàlla may ñu président boo xam ne on est de la même génération muy son excellence le président de la république Macky Sall. Mhm. nekk la père de la nation. Mhm. yamale ñëpp di liggéey. am soxna soo xam ne nag. kooku mooy la mère de la nation. muy première dame. nekk suñu marraine officielle. jël ñu maa la wax lii jël ñu boot ñu mm-hmm. roggandee ñu ay desner du ma wax sa sëru rabal mm-hmm. kooku moo bëgg jëkkëram ndax dañ ne xeer bay tëye sàkket mm-hmm. da cay daru kon ñun bu ñu bëggee jàppale président ci jàppale jàppale wuñ ko suñu bopp la jàppale ndax Sénégal suñu gaal la ñu ñëw ñoom dañ leen sollicité ngeen jàppale leen foofu laay ñëw bi nga xamee ni gis nañu ma teg ko sama gox muy dox ñëpp ñëw ñu wàll si waaye ba ma demee dama leen mën de aw dara jàngalekat laa maa ngi nekk gestionnaire ci mu kër Njaay Lo mhm. mais bu ñu àndee liggéey mhm. ñu wóoluwante mhm. yërëmante mu ànd ak sutura dinañu am ah ñun defal leen calebasse utal leen statut juridique première dame mu ñaawul moomu nag deex génn muy la délégation à l'entrepreneuriat rapide ñu financement bi nag nekk loo xam ne. Mhm. dañuy ñëw di la jënd. Mhm. wala dañuy ñëw di la graisser. Mhm. on a travaillé avec l'approche par les compétences. nit ñi ci lu leer y avait les fiches de cautionnement solidaire ñuy déposer ci sous préfecture yi di xaatim indi sa de commerce euh, nu mu tuddati sa photocopie carte d'identité légalisée sa résidence certifié ni man maay diw lii laa soxla pour liggéey ko ci nàngam ah ñu wóolu ma ndax mënoon nañ ni kii kat dafa ñëw pour dóor wala bu ñëwee moo koy dékk te amaan na ku ci nekk yaa dékk sa bopp ba ko defee nag loo xaar da la fay fekk ñoom dañoo toog xaar mhm. on a travaillé pendant deux ans gisuñu financement ñu nekk ay góor pur bu ñëwee leen kii da leen di tardé yoxul dara. Mhm. xamul sax yoonu pale ba. Mhm. su ma ñëwee ni leen du may wax ne maag ma ñooy fanaan wala ñooy yendu de. Mhm. waaye daal xam naa fa ma teg. ak ñëm ma dénk. teg nañ ko ci yoon. su ngeen xaaree tuuti. le maire reste à venir. ba financement ba génn. leneen ak leneen génn. dons yi bu ñëwee ñu séddale. bu ñu amee indulgence yóbbu. te foog naa c'est ça l'émergence. léegi euh, li jëm ci calebasse bi yow. Euh, da nga ko ñëw teg woote ñu ñëw fekk la ci liggéey bi comme tey mun naa ne képp koo xam ne bëgg nga jàppale jigéen ñi mën na la solliciter nga def renforcement de capacité ci jigéen ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci gox ak goxaan yi te yow daa mel ni romb nga Bambilor de. avec plaisir. la ñuy la ñuy bëgg nit ñi duñu sollicité parce que li ñu jàng ci daara ji dañ ñi ki gën ci askan wi mooy ki leen ëppal njëriñ te nag askanu senegal am nañu droit yëkkati suñu loxo ni ki bëgguñu kenn ëpp ñu fi njëriñ ndax nee naa ñu yàlla tànnal tegal ñu ko idéem dëppoo ak suñu bos mu yëkkatiwaat suñu dignité joxaat jigéen baatam mu am place tegal ñu parité gouvernement bu mu formé bëgg na jigéen ña gis ci seen bopp. Mhm. lépp liste bu muy def benn góor benn jigéen. Mhm. ngelawaay la waaye kooku moo ñu encouragé pour ci féminin ba nga xam ne mi ngi nelaw ci ñun ñun ñu extérioriser ko. Mhm. kon nag jigéen ñooñu la nga xamante ne ni calebasse yi daf leen intéressé nañu ñëw naam déglu ndax calebasse bëri na bokkul mais Linguère de l'émergence communauté lañ ñu na leen bu ñu xoolee suñu concept de travail on est les amis de ndax ku ci bokkul da nga ciy génn. Mm-hmm. parce que ànduñu àndu intérêt. Mm-hmm. yàkkamtiwuñu ndax ki nga xam ne ni dañ ko bëgg a jàppale pour mu suqali Sénégal. Mm-hmm. ni yoonu yokkute. boo nee yoon rek nit ki buy dox. yow nga taxaw àndatu leen. suy daw yow ngay wax àndatu leen. te bu mu nee man dama bëgg président. ba jigéen ñi ànd ak man sopp ma. yëkkati ma dooleel ma. ni dañu bëgg président. mënuñu jàppale président lu dul liggéey. ci bokk ci ñuy liggéey Sénégal. xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi ca Ziguinchor ñii ñu ngi mm. nekk ca Kolda ñi mm. nekk Marsassoum ca dëkk bu ma dëkk te xamuñu mm. tey naka la ñuy def pour approcher la tey ku bëggoon a bokk ci Calabas Linguère émergence bi mm-hmm. moom ban yoon lay jaar pour bokk ci mën a am tamit ci jumtuwaay yoo xam ne dina mën a demal boppam waaw macha allah euh, foog naa ni page Facebook bi nit ñaa ngi koy aimé lu bare bare mm-hmm. am na ay numéro su ko defee da ngay jël rendez-vous ñëw ci permanence ba permanence bi nag mën nga ci département de Rufisque nekk ci commune u Bambilor nekk ci village Kounoun mais particulièrement ci quartier ba tudd Fass Kounoun nekk euh, villa numéro 328 Ilo Bay di sama makkaan bi ma yàlla may bëgg président nag weesuwul ñun dañoo dem jël man damaa dem bokk dem jël yi BHS ga may fayee ko jël fa pare bu rëy ba koo fay fii ak fukki at ak juróom pour béy sama waar ci Sénégal ndax nag bu ne damay jàppale président waruma xaar mu may jox di kaas di ŋàññ di yàq au contraire damaa war a defar xaar xam ne bu fayul sax yàlla fay te ku ko xam gis ko nu muy doxee ak soxnaam su ñaawul soosu xam ne dañuy fay ndax ñu am ko lër lañ mais dañ ko def ndax suñu wareef la gis nañ jigéen ñi nu ñu lottee ku bëgg falu ñu fal la ku bëgg jàpp ñu jàppale la te au contraire duñ ci bénéficier wu suñu xool nag tooy ñu niñ jóg tunkoo mënte dañu ànd bokk ndey bokk baay permanence ba ku ñëw ci région yi da ngay fanaan ñu ngi liggéey ak région de Kaolack ñu ngi liggéey ak région de Diourbel ñu ngi liggéey ak euh, département de Nioro ñu ngi liggéey ak région de Thiès ñooy sollicité mhm. bu ñu demee ñëw ñu ne leen région yi kat mhm. comme ñun bu ngeen dugg see dañuy déplacé wu. Mhm. di leen fekk si di évaluer ba xam ndax li ngeen fi jëlee yéen a ngi koy doxal. Mhm. ah téeméeri nit de. Mhm. bu ngeen ko amee par calebasse moo ñu gën a su demee ba mënul ñàkk. ngeen def juróom-ñett fukk. mais dans les quatre départements de la région de Dakar. calebasse yi ñu fi initié par cinquante la ñu commencé en deux mille seize deux mille dix-sept tey on est plus de douze mille au niveau national. ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu. tur bi ak foo nuyu woowee. Ah, gox bi lañ tax woon madame Ndeye Codou Ndiaye. bisimilah yaa ngi ci biir bisimilah. ah, ah wax na yéen a ngi interviewé koo xamante ne ku jar a interviewé la. jërëjëf. Ah, muy def nag lu baax ci dëkk bi. Mhm. di ko defal jigéen ñi. Mhm. ah mu fekk jigéen ñi ci seen gox ñu toog. Mhm. mu xamante ne am na liy nelaw si yéen. Mhm. ah ñuy góorgóorlu bu baax. Mhm. mu xamal ni ni ngay def. Mhm. ba yor di ñu financé. dugg si gox yi. ah goxaat yëpp. ci réew mi koo xam ne kenn defu ko. fëggul benn ministre. fëggul benn député tàllal ko loxo di ko ñaan. ah ñun nag ñu topp ci ginnaaw di sant yàlla bu baax a baax a baax di ko gërëm. yéen a ngi gis seen bopp di ko ñaanal yàlla. Mhm. yar na yàlla teg lafam bi si ndey jooram bi si kawam. Mhm. Ah, di wax ne président ba amoon fukki ndey Codé Ndiaye dëkk bi yëpp bu baax. Mhm. jigéen ñëpp tekk jigéen ñëpp liggéey. waaw ah, ñun de lumière de ngi sant yàlla bu baax li ngay rek kuunum dë yëpp boobu ci jëlee financement bi. bu léegi benn li ngeer toogatul waaw mhm. ah, ñëpp pour jóg nag di mhm. daan seen dool di dem di ñëw mhm. seen entreprise mu ma tam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di leen na yéen ñooñu nga xam ne a ko ah, bu baax a baax a baax merci madame invité ngeen nag ku jar a invité jigéen ñëpp suturaal ji ñëpp takk seen ndigg toogatuñ ku ñu dënal ñëpp koy sant di ko gërëm mhm. mm, te démb rek social bu muy def mhm. ci kër njaayaloo googu lu ñu jël ñoo trente jàmm mhm. ko heure bi ngi koy ñaanal nag yàlla na làkk ko fa la ko eggul ci dem kanam biir ak biti incha allah ñu ngi a mel ni jigéen ñi adopté nañ sa <laughs> philosophie bi nga xam ni yow def nga ko tey si ñoom waaw xam nga nee naa la bi ñuy jóg sama koñ rekk laa doox fekk fa nit ñu baax mhm. ñu dalal ma mhm. kër gu ne ma dugg fa rekk la man de dama bëgg bokk ci ñuy suqali gox bi mhm. sant naa leen gërëm naa leen waaye dama bëgg ñu yokk ci leneen ñëpp d'accord ñu jël kooku salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam soxna si ñu ngi lay nuyu tur bi ak foo ñuy woowee Euh, man maa ngi leen di woowee cité Salaam. Mhm. Euh, bi nekk jërëjëf. Mhm. bisimilah. maa uh-huh. lan nga ñu mën a wax ci Ndeye Codou njaay waaw. Mhm. allo allo waaw lan nga ñu mën a wax tey ci Ndeye Codou njaay waaw Ndeye Codou Ndiaye moom mooy suñu présidente mooy présidente. Euh, Euh, de la fédération de calebasses des Linguères de l'émergence mm-hmm. moom moo ñu moo ñu jiite vraiment euh, di ñu jàngal euh, nu ñuy liggéeyee. Mm-hmm. vraiment génne ñu ci kër yi. Mm-hmm. Ah, génne ñu ci tëdd bi ba nga xamante ni actuellement ku ci nekk rek yaa ngi xool li nga xamante ne moom nga war a def di ñu jàppale ci côté yëpp. Ah, yéen yéen a ngi jot financement. mais li gën a am importance financement yi am na solo lool. Mhm. mais daf ñu ak ay euh, ñu ñuy former. Mhm. Euh, di ñu jàngal euh, naka la ñuy defee céréales locales yi. Mhm. Euh, des fruits et légumes ba nga xamante ni actuellement. Mhm. ku ci nekk ci sa niveau calebasse. Mhm. dañ cee dañ ciy réorganiser wu. ba ñuy defar ci suñu biir. di jaay di am suñu suñu suñu suñu xaalis bi nga xamante ni dinañ mën a tourner. ci suñu biir ba nga xamante ni duñu am benn problème. dinañ mën a jàppale àllaaji ci borom kër. te yéen ciy gis seen bopp bu baax a baax. bu baax a baax ñu ngi ciy gis ne bopp moom franchement moom moom dañ koy ñaanal daal di ko sant di ko gërëm bu baax mhm. ndax euh, Linguère Ndeye Codou daal kenn amul fayam daal mhm. franchement ñun moom lee Linguère mhm. ñun daal ñu ngi sant yàlla vraiment euh, pas plus tard que euh, semaine ba la passé rek am na ñi nga xamante ne financement yi ñu leen dugaloon ay projet projet yi sax ci seen bopp commencé nañu génn ba jox nañu projet yi su nekk ñuy xaar la man mii projet. Mhm. ba dinañ ma ci kii bi ñu xayma. Mhm. ci financement bi dina yegg ba ci ay cinq millions. Mhm. am na ay financement individuel am na ay financement tamit par groupe. donc euh, franchement ñun daal amuñu fayam daal dañ koy bàyyi ak yàlla mu ngi jàppale bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf ñu ngi koy sant. di ko gërëm. su ma moom su ma déggee waxinam mooy maanaam yaa ngi jàppale yaa ngi leen di financé waaye ba tey yaa ngi leen tàggat tàggat yi ci naka waa xam nga buñ ne autonomisation de la femme mm-hmm. buñ ne autonomie rek mm-hmm. ñu xam ne ku ne yaa dind sa tuuti def ci pour mu dox mm-hmm. mais li gën a am solo mooy xaalis boobu li nga xam ne ni yaa ngi koy yéene am wala yaa ngi ci jot a suut pour multiplier ko nga am capacitation il faut nga am loo xam te président li mu wax dañu un Sénégal de tous un Sénégal pour tous man bu ma taxawee ni man njiitu réew mi. Mhm. je me retrouve dans ces idées. Mhm. la première daam la muy def ci social. Mhm. ñoom mënuñu nekk partout et faire kon suñ leen bëggee jàppale. il faut ñu dem. la où le bas dugg ci gox yi. ñu ñu woo. ñu déglu leen. bu ñu waxee ba jooy ñu ànd ak ñoom jooy. bu ñu waxee li leen neex ñu jël ko. ngandal ko. ndax politicien. dañuy wax politique politicienne. Mhm. président ñoo indi rupture. Mhm. muy métamorphose. Mhm. ñun loolu moo ñu. moo ñu yee. kon donc am na lu doon nelaw ci jigéen ñi. waaw yow loolu nga ñëw génne si ñoom. voilà ne yoon bi nii la. waaw ndax tey succès bi tey mii fii. <laughs> waaw xam nga yàlla boo nangoo nekk taalibi. man tey dañ naan présidente waaye man maay seen taalibi. Mm-hmm. man ñooy samay présidente mm-hmm. ndax bu jóg jotee uti mm-hmm. dañ naan ñun duñu dem fenn nam muñu dara ndax am nañu lingeer et loolu dafay nekk motivation te motivation réussite rek moo ciy topp quand on engagé nga fixé wu benn but ni lii mooy sama objectif day nekk routine ci la ñuy waxtaan ci la ñuy xëy ci la ñuy yendu ci la ñuy fanaan su ko defee formation yooyu le mhm. nga xam ne dañ koy def ci chaîne agroalimentaire mhm. def transformation fruits et légumes mhm. defar ay jus defar ay pâtisserie vraiment ñii di def teinture ñii di def des objets d'art ñii ngi defar ay bijoux ay sac ay dàll sax ci tissu yi ku ci nekk diñ ci diñ ci utiliser kon consommer locale ba ñëwaat na waaye nag dinañu contribuer itamit mhm. ci suñu développement économique gu réew mhm. ndax dem nañu foire internationale mhm. am pavillon ca pavillon orange am pavillon ca pavillon Sénégal euh, ñu am fa stand ñuy sant waa ASEPEX docteur Malick Diop rawatina DG Sarr ak Fall ak madame Guèye ñi nga xam ne ba ñu ñëwee indi suñu ay produits yu ñu transformé dañu dem ba DCI. Mhm. fay xaalis bu bari. Mhm. article produit bu ñu defar ci céréale dugg ci labo yi. Mhm. dugg bio dugg chimie ñu saytu ko ba xam ne li nit ki mën na ko consommer am ci wér gi yaram. waaye am ca cafka ba mu soxla mhm. te lépp mi ngi jógee ci suñuy meññeefu yi réew yi ñu suqali mhm. loolu tax tey mhm. ñu postulé woon ci quatorze régions yi ñu ñu représenté Dakar woowoon a dem sax salon waaye dañ ñi leen nañu gën a daas fanaanal ba ñu nekk sur les mêmes longueurs d'onde ndax ñun maillon lañu kenn bëggul dem bàyyi sa morom on est une communauté c'est une famille kii suude kon formation boobu boobule tey li ñuy defar ci cere du taxaw ñun ñoo ci lekk d'abord yéen da ngeen di defar cere alimentaire lépp la ñuy def hmm. léegi man su ma bëggoon tey ci cere bi moom nan laay def da ngay ñëw def sa commande ñu liggéey jox la ci bu yomb ñun ñoo koy defar ñooy araw ñooy sebet ñooy wal ñooy araw ñooy mooñ ñooy tay mhm. ñooy def même machine yu bees yi génn sax nga xam ne day araw mhm. dañu ñun on veut sentir mhm. le goût d'Afrique tey am na kuréel goo xam ne. Mhm. mu ngi judd foofu ci France. Mhm. ni goût d'Afrique la tudd ñu ngi am commande plus de huit millions bu ñu ko wala bu ñu ko war a livrer. Mhm. avant le quinze mars. tonu cere tonu araw tonu càkri ñun dañuy liggéey ak les chargeurs. ñun dañuy produire. paquetel leen defar jus yi. livre leen seen bagage ñoom ñu fay. daal di yóbbu kon su ma jaay ci alimentation yi. Linguère gi yemul Sénégal rek mi ngi law ba ca Touga. waa parce que foire yi dañu am ay gan yoo xam ne international lañu. Hmm. te Sénégal dañu am richesse boo xam ne. Hmm. Euh, dafa extraordinaire te nit ñi xamuñu ko. Hmm. nit bu xamul fa mu jëm mhm. day dellu fa mu jógee ñun enracinement et ouverture la ñuy liggéeyee mhm. boo ñu gisee dañuy sañ sa ba rafet mhm. di sebet suñu dugub da teg suñuy table daaj suñuy malikaan bu ñu weeree jël suñuy moustiquaire fóot daa di weer muur ba mu rafet du am poussière dina set dina sell ñu walal suñu bopp ñii dem tey ñi segg jus defar saabu eau de javel consommer local mais lii yëpp tey daa mel ni tey euh, kon Bambilor kon mun nañ ne euh, émergence la de. waaw xam nga Bambilor émergence la unanimité kenn amu ko parce que nit ñi duñ la yow a yow rek nga foog nga yaa moom dëkk bi. su ma la déggee mooy. du ñëpp mooy ànd ak yow. Mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. li mu amul woon ñun duñu ko am mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne boo jógee ne bëri rek di jàng baax da leen di déranger parce que yàggoon nañ fi lool waaye xamuñu woon ne jëriñ sa askan nii la amee solo xamuñu woon ne solidarité et partage muy suqali gox ku ci nekk indi li la yàlla may ngeen boole mu def benn loo xam ne lu rëy la te ñun Linguère loolu mooy suñu dos les couches vulnérables lu ñu jël promouvoir leen la jeunesse ñu gunge leen ñaari question ñu continuer ci calabas yi rek. Mhm. su ma la dégg yaa ngi doon wax sànq lim bi. Mhm. quatre C yi moo di quatre commune yi. Mhm. tey lim bi. lim bi ci 4C yi. du loolu limu national laa la wax. limu national lim bi ci 4C yi. ñu ngi ci deux mille sept cent soixante quatorze Linguère. au niveau de douze collectivités territoriales mhm. du département de seen mhm. seeni kayit nekk nii mhm. soo bëggee ma wan la la liste des calebasses wan la les statuts juridiques nga def la somme teg ndax weddi moom gis bokk ci ñu dendale ko nag ak des clubs jeunes dendale ko avec des comités ci ci naka euh, de euh, de euh, comme par exemple nee naa la yaay moom moom doom calebasses yi buñ koy xaatim jigéen ñi ñoo ciy toog risque de commerce jigéen kese moo ciy nekk. Mhm. mais da gis góor ñu baax ñi. Mhm. suñu jëkkër yi ñaawul yooyu. Mhm. suñu frères yi suñu papa yi. dañu leen defal ay commité de sage. lu mel ne chef de quartier yi. chef de village yi naam mi ñu bëgg a jóg nekk bu ñu amee xew ñu ñëw jëmmal ñu. ñu defal leen commité di waaj ak ñoom sax nag ay club randonnée pédestre yu baax. pour mhm. suqali leen ci seen troisième âge. Mhm. dëppoo ak suñu vision première dame. Mhm. muy troisième âge vie paisible. am ay club jeune jël les instances. lu mel ni association. lu mel ni ASC. ak tim yi xale yi xewal groupement de femmes yi jotul woon ànd ak ñun. Mm-hmm. ñu leen di invité ci ay quartier général. Mm-hmm. ay thé baa di waxtaan lu soqali suñu gox d'abord. Mm-hmm. bu ñu liyee ba ca ba mu rafet. ñu won leen nag yoonu développement bi nga gis ne loolu moo massifié. li nga xam ne mooy communauté bi. yooyu commencé nga ko tay démb ci guddi ci la ñu fanaan. voilà imaam yeeg naayam yi ñoom. approprié woon nañ ko comprendre idée générale bi ñuy liggéeyee. Mhm. dañ naan leen politologue wuñ leen. Mhm. mais comme jigéen amul doole. Mhm. te bëgg na ku ko iir. kilifa bu lay seet si gis ne kilifa gox ba dëppoo nañu ak sa bëgg-bëgg. dañ lay gën a jox cër. te su boobaa dañ la bàyyi xel. dañ naan politicien bu ñëwee day diggee dina bàyyi cër bi kilifa yi toog assister. ba nga xam ne moom day samp kersa si digganteem ak ñoom. mais dañ la gën a fonk xam ne am nga kilifa. dañuy dellu ci goxu waxu Bambilor mhm. Bambilor euh, yéen tey naka nga gisee tey commune bi mhm. ci ban faat na ci wàllum développement ci gox ba tey ban gis-gis nga ci am waaw sant yàlla waaye bu doolee ñu jël ñu ngi soxaliku oh, waaw dañuy wax waaw ci ci ci fi ñu mën a yem mhm. di ñaan yàlla mu yokk ndax Bambilor commune bu mag la commune bu am vingt-sept villages ak ay quartiers tuutiwul ñu xam richesse su Bambilor lan la. Mhm. ñu ne suuf la. Mhm. ba infrastructure yi bëreegul. Mhm. ñu bëgg nag bokk ci des modèles yi nga xam ne. dinañ fa liggéey ci suñu développement bi ba nga xam ne. infrastructure yi ñu bëgg dana ñëw implanté fa jege fa. pour mën a suqali ci li nga xam ne ni moom mooy suñu. vision am na ay jafe-jafe de. waa réew bu ne dëkk bu ne am na jafe-jafe. Ah, li fa gën a jàmp tey lan la Bambilor. Ah, yow laa koy laaj. moo jox la ci sama xalaat. léegi yow laaj na delloo naa la laaj bi lan moo fa gën a jafe tey. dama ñëw fii tey nga laaj ma. Mhm. soo laajee lingéey lan moo fa seen jafe-jafe mais boo nee gox bi. Mhm. yow la nga xam ne da ngeen ko relaté. Mhm. loo ma ci laaj loolu laay tontu. ci wàllum xam nga euh, coowal suuf dafay bëri lool côté boobu. yow lan moo si sa xalaat coowal suuf bi lan moo koy waral. waaw ñàkk a maandu ndax nag. ba ñuy fal seen commune. en 2014 man nekkuma fa. maa ngi dëkk commune Bambilor mhm. le 26 juin 2016. Mhm. Ah, fekk ñu def seen i conseiller mhm. def seen commune ba mu baax man la ma ñëw jàpp mooy indi sama valeur ajouté ci commune ba ndax dëkk naa sama quartier six mois ñu jël mbokk moom salaamaaleykum salaamaaleykum. ah soxna si ñu ngi lay nuyu tur bi ak foo ñuy wooyee. maa ngi leen di wooyee jaxaay man la yaa Seyda Zeynab. Mhm. jaaxal yaa yaa Seyda ñu ngi lay dalal jàmm ci émission gox bi bisimilah. loo ñu mën a wax maa ngi am kontaan te bu rëy rëy macha allah. Mhm. Euh, ci suñu leader boobu ngeen invité muy Seyda Ndeye Codé. Mhm. moom waa jaxaay macha allah kontaan nañ lool si moom yàlla xam na ko rawatina man. nga xam ne ginnaaw yàlla yeneen ci bi moo ma jox loo xamante ni tey moom laa sampe sama daara hmm. ma koy ñaanal sunu borom yenn yàlla defal ko jàmm hmm. euh, Linguère de l'émergence ci kaw ci kanam ci lu baax yàlla defal ñu tawféex hmm. defal ñu taysiir defal ñu najaax bi jaay sayyidina Muhammad macha allah liggéey bi set na te wax dëgg yàlla mu ngi def loo xamante ni macha allah ñëpp teg nañ ci seen bët kon amuñu fayam dañ koy ñaanal yàlla yal na yàlla defal ko lu kawe njottam mm-hmm. yàlla dooleel ko kàttanal ko jël loxoom bu tedd boobu le teg ko ci kawam mm-hmm. ci barke alxuraanul karim mm-hmm. yàlla am na ko mën na ko yal na ko yàlla def lii de bu doon politique la dama naan rafet na ndax jël nit ubbil ko daara muy jàngale alxuraan di ci teg ay xale donc loolu rek rafet na mu indi seede bi tey dama ne bu doon politique la. Mhm. loolu lu rafet la ndax tey euh, askan wi ñi ko am. Mhm. jotul itam ñu def ci loolu. wala itam ñu ñëw laaj la yow nan nga jaar tey ba li nga xam ni moo doon nelaw tey ci jigéen ñi nga yee ko. waa xam nga ku nekk li mu toll li mu am rek lay maye. Mhm. ñii tey boo gisee nit ki. ki nga war a defal. soo ko jàppalee ba mu am autonomie. Mhm. noppal na la. Mhm. ndax yaakaar dafa foor mhm. sànq présidente Kalabasa moo dugg. ba ñuy dugg fekk ñu fi dara damay leen awma dara dañuy ànd ci concept bi. on veut être autonome. ku nekk na dindi sa tuuti def ci pour mu dox. ñu wan président ni ko mën nañu dara. ñu jël kooku salaamaaleykum. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam rahmatullah ñu ngi sant bu baax. bien tur bi ak foo ñuy woowee. Rokhaya Thiam Jaxaay. Mhm. Rokhaya bismillah loo ñu mën a wax ci Calebasse bi nga xam ne. Ah. nday ko nday Codou Ndiaye jiite na ko am mhm. kontaante bu baax. Mhm. am mbégte ci kooku nga dalal tey. ndaxte ñun fii ci Jaxaay daf ñoo fekkoon ñuy nelaw. yaa nday Codou Ndiaye moomu. moo ñëw. financé na jigéen mhm. ñëpp. ñuy sëy di liggéey ndax sama classe bi moom daanaka dañoo ci lu ñu nekk rek ndey kodd moo tax. say mhm. ñu am fit bay jug di liggéey. Mhm. Ah, ñu ngi koy ñaanal daal. li mu bëgg ci fédération bi moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal. ndax ah, ndéeg ñu daa amuñu fayam daal. parce que daal fi ñu jëlee daal ak fi ñu yóbbu daal daf ñu defal daal loo xam ne nii. séntu ñu ko woon fenn ci àdduna. yaakaar yooyu ñu ko woon fenn. Mhm. nday kodd moo ñëw. Mhm. financé jigéen ñi jaxaay. Mhm. léegi benn jigéen tëddatul. laajatuñu benn góor. lépp lu ñu soxla ñoo koy defal suñu bopp. lépp lu suñu njaboot soxla tamit ñoo ngi koy def. te lépp nday kodd la. ñu koy ñaanal yàlla nag. lépp lu mu séntu ci fédération bi. yàlla nag ko yàlla defal. ok jërëjëf. jërëjëf mel na ni de. Euh, li nga xam ne moom moo jëm ci kalabaas moom am na solo moom jigéen ñi moom. sànq dama déglu nga ni bu doon politique. Mhm. ak ñu mën a politique. Mhm. mais ban politique politicienne. Mhm. buy jëmmal nit ñi. man ban politique nekkul politique politicienne. dama lay wax tout le temps boo tuddee Sénégal rek di nga tudd njiitu réew. te du day far mais ki nga xam ne li nga bëgg. dafa méngoog li muy def. da gis sa bopp ci moom muy son excellence le président de la république yàlla na fanam yàgg. mission bi yëpp mu ngi nekk ci gox bi. Mhm. mais munuñ ko ñàkk ba ñu tudd. Mhm. nee la dañu dëppoog moom vision. Mhm. plan Sénégal boobu boobule. ay réforme la. ay projet la. def métamorphose. ba jigéen ñi doon ndëstanu ci kër yi di xaar. wala ñu foog na jigéen pour mu am promotion dafa war a jaay boppam. wala dafa ñàkkal fayda boppam. war a suufeel boppam. mu ne déedéet. jigéen ci li ñu ko xamee. Mhm. dafay sangewu mhm. dafay téye sëram dafay gëm ne. Mhm. lépp lu góor mën a am. ci ndimbalu suñu borom war na ko mën a am. te dëppoo ak li religion mu bëgg. kooku nag bu ñëwee ba ni plan Sénégal émergent boobu mën dama koy continuer. mais dafa am beneen vision bu bees. parce que l'appétit vient en mangeant. dafa ñëw def confirmer. ñu ne waaw mhm. mu ne ma dolli mhm. daal di indi mhm. les cinq le cinq trois cinq nga may ma tuuti rek ndax ñoo fi dàq politique mais politique de développement socio économiques mu ñëw indi les cinq initiatives majeures foog naa li ma fi wax dëppoo na ak muy jeunesse PSE jeunesse. 2035. Mhm. Mhm. ñu ngi ci jeunesse bi. Mhm. ndax nee naa leen doom yooyu la ñii ñooy seen i mag. ñii ñooy seen i yaay. ñu bëgg nag wax dëgg yàlla léegi leen. un Sénégal prospère. kon il faut ku ci nekk. nekk ci développement personnel. ñu boole ko mu nekk développement communautaire. ñëpp gis ci seen bopp ba ëllëg. bu ñu jël réew mu jël réew mu naat. ñu jóge ci loolu mu ne PSE économie sociale et solidaire. indi na microfinance. indi na DER et cetera ñu teg ci. financé nañ ñaata. ci plus de mille femmes et jeunes. Mm mois de septembre entre août et septembre ubbi nañ trois mille huit cent comptes ñu validé ci deux mille trois mhm. yoo xam ne leer nañ ne seen xaalis dugg na. Mhm. yeneen yi nag wax dëgg yàlla dañu ko boucler woon. Mhm. on ne plus continuer parce que liggéey bi on le faisait vingt quatre sur vingt quatre. ndax les dépôts étaient en ligne. te yéen ñëpp fay ngeen. Euh, ñu ngi fay léegi ñu pare mais deux mille trois yi jëlaguñu. mooy enveloppe bi ñu dégagé. ñoom ñu nekk nag ci defar seeni i dossier ñu jël mbokk moom salaamaaleykum asalaamaaleykum allo. xëy na réseau bi la. Mhm. yaa ngi woon fu am solo. waaw ma mhm. ñëw ci. Mhm. société. PSE société numérique et inclusive. ku ne gis na ni président bëgg na. Sénégal bokk ci Sénégal yi nga xam ne réew yi nga xam ne. vraiment ci numérique. dañ ci avancé. da ngay toog fii léegi. di signer ak contrat ak ku nekk États-Unis wala keneen di intervenir ci wàllu santé wala. Euh, ku nekk fii. ba ci opération. mu indi PSE vers ou la reforestation durable du territoire. nationale. Mhm. ñëwaat wax cap sur l'industrialisation. Mhm. nga gis ne keroog. Mhm. fa la ñu ngi doon inauguré euh, pose première pierre euh, mu ngi noonu. kon loolu dafa am solo. Mhm. mu indiwaat ñetti programme sectoriel à l' échelle nationale. Mhm. di zéro ville mhm. liggéey yi Linguère yi nekk en phase ak loolu. bëgg a def chaque Linguère un ñu am coopérative d' habitat bi nga xam ne. on a plus de deux cent cinquante adhérents. parce que am na ay góor am na ay jigéen. ci ci fédération bi bi. ñun nag ñu ne dañuy commencé. inscrit wu ku ne deux mille. dix mille francs jënd suñu ay bureau jënd ci équipement. pour mën def suñu cartographie des Linguères au niveau national. Mhm. mais ñan ak yan site la ñu bëgg. Mhm. di ci fay suñu courtier mu ñu utali suuf. Mhm. di ci dem di def ay visite de site. di préparer nag def suñu assemblée générale. pour mën a am convention ak agrément. bind suñu kayit xaatim. yóbbu ci suñu njiitu réew ni ko suuf la ñu bëgg. boo ñu jàppalee ñu jël boo ñu jàppalee ñu ngi jéem xam ne daanu dajul suuf. ci loolu lañ nekk. ñu jël mbokk moom salaamaaleykum. asalaamaaleykum. xëy na réseau bi moo am. tuuti jafe-jafe ñu bàyyi la nga continuer. kon bu ma jógee allo allo salaamaaleykum. waaw bisimilah tur bi. allo. allo waa tur bi ak foo ñuy woowee. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi na nga def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. mbaa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax a baax. dalal ngeen ku mot a dalal. Mhm. allo. waaw ñu lay dégg bu baax. waaw man la Badiane Mariama ñu ngi gàmm ma gën ci Tamba la. Mhm. Badiane nuyu nañ la. Mhm. <laughs> yéen a dalal sama doom ju baax macha allah. Mhm. jigéen ju baax jigéen ju man góor macha allah. Mhm. day jëmale Sénégal kanam. Mhm. ndax soo ñëwee fekk màggat ñu mel ni man. nga dugal leen ci ay liggéey. ñuy liggéey te dootuñ nelawuñu. kon yow dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla yàlla jàppale la. yàlla yàlla suturaal ko suturaal mboolem jullit. muy bëgg nag président Macky Sall di xool jigéen ñu mel ni moom moomu Adja Ndeye Codé Ndiaye. Hmm. jigéen ju baax. ji hmm. jigéen ju boole ay famille jigéen ju jaqale ay doomu aadama ñu nekk benn fédération bi hmm. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. kon Adja Ndeye Codé moomu dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale. yàlla na ko yàlla suturaal suturaal loolu lañ koy. macha allah. jërëjëf Badiane ñu ngi koy sant di ko gërëm. yal na ko yàlla fay yal na yàlla jàppale ko suturaal ko suturaal loolu ñu ci jërëjëf macha allah jërëjëf waaw kii mooy euh, présidente Calabas bu Caaroy ay nomades yi. Mm-hmm. jàmm gën Sicap mbaaw commune. Mm-hmm. maa ngi nuyu monsieur le maire bu baax. Mm-hmm. muy euh, monsieur Ndofène Fall. kooku nag dafa bëgg président. jàppale ñu ndax bëgg président. ndax kero bi nga xam ne war nañ def forum le quinze bi passé. moom moo financé formation bi. tout ce qui matière première monsieur le maire moo ko jël. jël ko su ma la bëggee dégg euh, da ngeen di collaborer ak maire yi ku ci bëgg. Euh, ñu jëgmal euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ay goxam ngeen jàppale leen ne ngeen def loolu yéen ko ci bëgg mhm. loolu suñu wareef la mhm. ndax nit ki mhm. boo ko bëggee jàppale moom kilifa gi da nga koy tàkku amaan na nag am na kilifa yoo xam ne dañu xaw a fiir gisuñ ne ñun li ñuy jóg di ko def. Mhm. suñu réew la ñu bëgg jàppale. Mhm. wane ne jigéen ñi dañuy war a bokk ndey bokk baay. Mhm. loolu muy autonomiser. jigéen ñi. seen contexte. seen conception ni ñu bëgg a àndee. ñun jigéen ñi rek ñoo ko jox forme ak contenu bi ñu bëgg. xuus nag dem ci kilifa gi. ni ko ñun nii la ñu bëgg a contribuer ci suñu développement économique gu gox. ak suñu émergence pour jàppale suñuy borom kër. waaye ñi nga xam ne. ils s'accrochent à leur privilège. ñun dañuy douter sax ne ñoom bëgg nañu njiitu réew mi parce que ils ne son pas à l'image du président seen bopp lañ fi nekkal ak seen staff duñ ñu épouser waaye nag mhm. euh, autorité locale yi mhm. ñi nga xam ne dañu bëgg président te yàlla tax mhm. ñooñu bu ñu gisee dañ ñuy taaw ñaari loxo. Mhm. ne yéen lañ doon xaar. Mhm. dinañ leen jàppale. Mhm. ñu koy rafetlu ku mel ne Ndofène. waaye dafa am loo xam ne da nga tudd département tuddaat département de Rufisque te tuddoo ko. muy le coordonnateur du département. de Rufisque. le ministre des collectivités territoriales. du développement. Euh, de de l'aménagement des territoires ki nga xam ne c'est le meilleur ministre du Sénégal. Euh, parce que ci ministère boobu nga bokk. avant may nekk ci ministère bi sax. dama dëkk ci département bi pendant quatre ans. Hmm. mu di ko coordonné. dara ñoru ko. Hmm. lu du dajale njabootu président de la république. Hmm. dara ñaru ko. mooy fu femme de développement nekk. ak une jeunesse consciente mu appuyer leen. soo ko woowee mu ñëw sa programme. soo ko woowul mu ne ñetti nit fu ñu taxaw di wax la vision du président man damay ñëw. boo lekk yar. teggin mhm. fulla mhm. fayda monsieur Omar Gueye ñu ngi lay sant. buggoon naa mu dugg nag ci émission bi de. Ah, dafa dem voyage. actuellement il est mhm. waaye bu ma fi teewee moom laa teewal. waaw kon euh, <laughs> bu nu jógee foofu dañuy faw ñu ñëw si euh, Bambilor. faaw ñu waxtaan si. maa ngi lay dégloo. Bambilor. waa yow nga ne bokkoo ci mairie bi de nekkoo conseiller foofu. nekkuma conseiller. waaye la ñu mën def nañ ko. ndax ñun rëyuñu. ay ndaw lañu. jàpp ne njabootu. Mhm. njiitu réew mi lañ. Mhm. kon kam fa teg mu mhm. représenté ko. moom naka la war a xam ne noonu la tudd. l'édile. naka la war a xam ne noonu la tudd le serviteur. waaye ñun nag dañu am fulla ba nga xam ne. boo ñëwul ci ñun. ñu fëgg sa bunt. ni la ñun ñooy diw. ñun kat. dem ngeen ci moom ne ko yéen yàgg na. ñun ñooy diw mhm. fii la ñu dëkk mhm. mbaam gàtt na nag mhm. waaye ci jur gi la bokk boo ñu ca boolee ñu ànd ak yow liggéey boo ñu ca boolee wit ñu jàpp suñu yoon liggéey ndax nag ñun kenn moomuñu est-ce que ay nit lañu dëkk ak ay nit te duñu lekk nit ñi dañu war a jàppalante waaye ku ñu cof ñu bàyyi la nga wat léegi moom tey nekk na fa ay diir ba ci suma juumul bu nu fixé élection yi yàggatul deux mille vingt et la ñu wax vingt et mars au plus tard. Mhm. tey moom liggéey na ab diir. Mhm. te yow gis nga li mu def tey ci commune bi lan la. waa xam nga nit da ngay wax lu am logique. Mhm. maire du yore budget nga ne liggéeyul. mais liggéey bi centralité bi lan la. ndax fa ko def foofu la ndax tey boo gisee góom bi di nëb bay saxe nga jël sa alcool ak sa bédatine di woq fa amul dara amul sens duñ ne waxul dara mais y a des priorité yooyu nag des fois dañu gis ne dafay am négligence ndax ñun nag kenn abalu ñu bët ba naan ñu fu la neex ngay xool dama ni priorité jigéen ci la bokk priorité mhm. jeunesse ci la bokk mais priorité nag mhm. l'amélioration des conditions de vie des populations muy localité yi mhm. ndox mi courant bi ndax sànq dama wax ci bidonville ñëw ci zéro déchet. Mhm. ñu ne ñu ngi set setal. te mhm. kenn joxuñu peel cleaning day ñu ngi koy def. Mhm. mais ki ñu appuyé. c' est le c' est le du département moo ñu jox matériel. bu ñu ko invité dina ñëw. te ñëpp la ñuy lancer invitation. ku ñu yëgul nag. ñun yëguñu la. yow su ma la déggee mooy maanaam. waaw ci gestion euh, Ndiagne Diop moom mooy maire Bambilor. waaw. Euh, yow bilan am lan la tey sa gis-gis. waaw bilan woom du ñu wax ne man bokk. xam nga dama ni la li ma impliqué wu ci laay mën a wax. Mm-hmm. impliqué wu la ci dara. non non nee mm-hmm. na fekk naa ñu def seen. Mm-hmm. staff ba pare. man li ma mënoon ñëw ni ko mankat kat njabootu président laa. bi ma yegsee du yow laa jàpp. mais président laa jàpp moo tax ma ñëw wër si la. ndax fi nga dëkk six mois. gisoo fa benn conseiller bu ñëw. ne la maire ma yebal. ca gox ba. waxtaan leen ñu dëppoo ak li ñu dem yóbbu leen. Mhm. ba yow nga jóg sol sa daal de ni ko tey maay représenté sa gox mu nangul la ko. Mhm. ngeen ànd di liggéey. Mhm. waaye booy jéem. ñëpp dinañ la ak yéex waaye bu ñu xamee ni mën nga. siis bi ñëw. bodd bi ñëw mbiru jigéen ak jalousie. te jaru ko. parce que sént asamaan. jarul xëccoo. yaa ngi def ay tournée ci gox ak goxaani ci biir. waaw Tëngéej ak li ko wër. ñenn ñi dama ko forcé wu béy. ñu ne. toogu Ndiagne Diop bi Bambilor mairie bi mhm. yow moom nga soxla dëgg la euh, waaw xam nga nit ñi dañuy wax li ñu bëgg mhm. yow bëgg nga ko xam nga ku nekk xam nga ki la jox potu caakiri nga naan mhm. ak ki la xoj nga de bu dee yow danga gis ne madame mu tuuti mu xeebu bi ci idée yi muy teg ñu di ko doxal ñëpp ci gis seen bopp te yorul layu bi kon bu ñu yaroon yaru bi ñun ñooy bees di becc beccal su ma la déggee soxal na la loolu képp kuy dund war na laa soxal ndax suñu borom moo ni amul benn xeetu xéewal bu ma wàccee mu jomb leen am nga ay projet projet nit kuy dund am nga projet lan la tey ci commune bi tey bu fekkoon bëgg nga ko nga bëgg ko fësal jox waa askan Bambilor ñoom tey projet boobu tey lan la xam nga man lan moo war a nekk sama yitte mhm. muy liggéey liggéey ndax nit ñi mhm. dañuy xam fa nga jëm mhm. duñ la bàyyi nga yeggale waaye ñoom bu ñu koy waxal seen bopp. Mhm. balaa jël ko seen bopp. Mhm. dama koy nangu ndax man seen Baay Faal mhm. waaye li ma ñor. c'est pas les titres. li ma ñor. mooy servir ma population mm-hmm. la population sénégalaise li ma ñor mooy am proximité mm-hmm. ak population bi xool li ñu bëgg ma mm-hmm. jéem a xam ka ko mën a doxal la ma ci mën ma def ko li ma bëgg mooy nemmeeku nit ñi miinanteeg ñoom brassage boobu ku ci nekk indi li la yàlla may ñu boole ko def quelque chose d'extraordinaire et c'est ça la vision du président du noonu ñu ñëwaat ci <laughs> les cinq accès universels da nga wax Bambilor la difficulté des Bambilor ñu ñëw ci eau et assainissement électricité mhm. euh, services sociaux de base mhm. service de mobilité collective service mhm. sportif et culturel sonal na leen bu ñu gisee ni dañoo ti dañuy ngaf ngaf yi bëgg naa def fii di bëgg naa def fee lee lekkitu kese moo naxul béy nit ñi il faut du concret des preuves à l'appui wax kese téyewuli nit te wax dëgg yàlla li ñuy liggéey nii di bokk ak suñu association seeni i tiis seen naqar seen i manquement ñuy daw ak suñu dërëm ak ñaar dërëm mm-hmm. la place qu'on occupe dans le cœur de nos populations mm-hmm. benn budget mairie mënu ko jënd mm-hmm. yàkkamti wuñu nag ndax suñu kilifa dafa bëgg li ñuy liggéey mu accommodé ak moral mhm. ak loyauté ak éthique mhm. du ñu xërtal mhm. kilifa dal ci kaw waaye bu bis jotee bis du ñàkk nit ñi yuuxu dina jub fuñ ko foogul woon <laughs> commune bi nag dafa am problème ay problème suuf waaw problème suuf bari na fa dem waa xam nga ñi bëgg a am problème suuf ça nangage ka ndax foog naa ni suuf bu leew ñi am ay seen TF titre foncier ñi am seen i ku ci nekk ba nga ye boo yemee ca la nga moom muy promoteur yi mairie ba yam ca la mu war a yem bañ a def bi bukki bi njur bi sàmba jaay kii jaay kee wala dagg suuf si population may nit ñi da jàpp ni fa am ah man loolu laa fa dégg te am naa fa litige nag foncière. dañ maa jaay terrain. Mm-hmm. ma jaay terrain ba di yóbbu propriétaire ba ñëw fekk ñu tabax ko maire ni ma dinaa la jox ndax ki ko jaay. Mm-hmm. waru ko jaay te boobu ba léegi nag mi ngi may dawloo joxuma sama suuf. Mm-hmm. kon monsieur le maire. mayoo ma suuf. lebaloo ma suuf. fekkewoo bañ may jaay suuf maa ngi lay ñaan nga delloo ma sama suuf. kon mbirum suuf réalité la fa. ci ñoom li man li ma dund laa xam li may dégg nag maa ngi koy dégg. naka la ah, demee. ak fan la. xamuma ña nga xam ne ñooy yoon war cee liggéey seen liggéey nañ leen ko bàyyee te xam ne nag a ah, nit nag lu mu rend rek ci sa loxo lay nàcc yal nañu yàlla may rek ñuy tegu ci yoonu njub dañuy jeexal conseillère technique nga ministre Omar Gueye fan yi rek ngeen jógee ci région yi def tournée di installer ñi nga xam ne moo di fonction publique locale Euh, yéen a ngi woon ci pàcc bu am solo ndax syndicaliste yi yàgg nañ ko jooytu naan nañ ko nañ ko teg nañ ko teg léegi teg nañ ko jéego yi lan la tey waaw xam nga loolu dafa am solo. Mhm. ndax dafa am fonction publique de l'État. Mhm. ak fonction publique locale. Mhm. te di nga dem ci benn collectivité territoriale. mu am cent personnes yoo xam ne dañ leen di fay. te amaana salaire ba ñu am. méngoowul ak seen i diplôme. waaye loolu sax du coow la. coow la mooy ndax am nañ protection. ndax ñoom dinañ am retraite. yan avantage la ñu mën a am. ba ci Euh, num intercommunalité affectation ki nekk commune bu Tamba mën a am affectation ci commune bu Thiès bu dee bëgg na ñibbi si naam mhm. avantage yooyu yëpp amul woon mhm. am na loo xam te ne ñoom dañu gis ne dañuy perte mhm. perte mënu caa am ndax fonds yi waaw dañu comprendre ndax tey ji fonds de dotation yi ku ne xam ne jéego yi ci ministre des collectivités territorial def monsieur Omar Gueye musul am décret yoo xam ne ak yeneen kayit yoo xam ne da daan xaar ba fin d'année nga bëgg ko jot avant janvier ngeen jot ko mu ñu indi fonction ni décret yi signé leen ko avant fin mars mhm. kon yaakaar ne ñoom bu ñu gaawee mhm. moom mu gaaw mhm. ñaareel bi itamit dafa am loo xam ne président daf ko initié boole kook ay partenaire muy PACASEN foog naa ne lim leen di li mu leen di indil ci apport ñuy waxate ñu ne xorom si sel ku ci nekk boo bëggee xam na ngay tojee sa bopp ji ndax mhm. mën nga ko utiliser ba doo am problème mu salaire mhm. mais dëppoo ak réglementaire u état ba pare mhm. leneen looy def nga seet na ngay tojee sa bopp ji ndax te mu tegu ci yoon ñàkk xam nag li mu waral dafa bari mais gis nga ni syndicalistes yi ñoo ko njëkk a félicité parce que nit ki bu comprendre mën na tiit ndax doon am salaire boo xam ne ni méngoowul ak ay diplôme nga indi réforme ni ko fii nga war a yem waaye monsieur le maire ci ay mën na ba nga xam ne ñooñu li nga xam ne waruñu nekk ay fonctionnaire mhm. mu recadrer leen mhm. defal leen ay projet mhm. seet nu muy aménager woo ak ñoom ba nga xam ne duñu mën a empiéter ci li nga xam ne dëppoowul ak état ministre bi soññ na leen sax ngir ñuy fay ñi nga xam ne ñoo ñoo di agent yi soññ na leen de. waaw parce que li ma la wax rek. dafa am euh, njiitu collectivité territoriale yoo xam ne. bëgguñu kenn seen bopp la ñu bëgg. ils à leur privilège. du ma ne ñëpp de. ndax nag. man j'ai un esprit positif. Mhm. waaye nag dafa am loo xam ne dafa fës bu mu ëpp. Mhm. bii bukki bii njur bi sàmba mhm. damay xëy tey conseiller bii kat nuyu na ministre diw te juboo maak moom dàq naa ko mhm. teg ko fenn fonction publique bu ñuy dina xeex loolu ndax mhm. dina protéger agent bi waaye nga gis ne kii tey su ma ko suqalee bu amee doole daf may daaneel bu ma ko fay wala naa yàq ay marché naa ko jox kii ah loolu nag daf fi war a jóg ku ma am ndey ku ma amul ndey ndax président de la république foog naa bu ñu gisee ci projet yi mu def ci sémi ci paquet euh, ci promoville ci leneen ak leneen mhm. PUDC mhm. réforme mu indi mhm. xam na ni Sénégal de tous pour tous kenn wu fi dara waaye jigéen ñi nag dañu tumuranke lu mel ne les douze collectivités territoriales du département de Rufisque fa ma dëkk laay gën a xam de ah, donte dinaa maîtriser nag waaye amuñu benn maire bu jigéen dafa jóg tey wala jot na jot na jigéen ñi mhm. waxuma sama bopp de mhm. ndax bu benn jigéen amee mu ngi mel ne toutes les femmes du Sénégal ñoo am mhm. ñu ngi nuy de passage suñu treize maire jigéen ñi elles sont exceptionnelles mais bu gënee dolli ñu jël ñu am nag benn responsable femme bu APR mhm. nekk ministre de la femme mhm. du genre mhm. de la famille et de la petite enfance muy Ndali Ndeye Saly Diop Dieng ki nga xam ne dañ ko def suñu marine d'honneur ndax première dame mooy suñu marraine officielle le ministre Omar Gueye suñu parrain officiel mais ay marraine d'honneur ñun ñëpp ñu yor gouvernement bi pare nañu nekk suñu parrain d'honneur ak suñu marraine d'honneur ñu bàyyi la nga sant maa ngi sant di gërëm ndax ci sant laa nekk mhm. ministre de la femme dañ ko marraine mu yónnee ndaw te boobu mu ngi mission mhm. indi ñu une enveloppe de deux cent mille mhm. xeebuñu ko parce que nit ki lu la jox rek pour jàppale la ay jigéen yëg na la ñu bëgg nag wax ko ni ko suñu kóllëre ak président dañ koy fëddali à travers ñi koy liggéeyal te yàlla rek tax compagnonnage bu rafet la ñu bëgg. Mhm. ku ñu yëg lañu bëgg ku ñu faale. Mhm. waaye di dénk président. Mhm. mu gën a. confiance bi mu am ci ministre Omar mu gën ko réitérer. parce que Omar mooy ki nga xam ne. kooku bëgg na ñëpp tekki. yërëm nañu. faale nañu. wax bëgg na Sénégal. Mhm. te li loolu la bëgg muy dajaleel ko njabootam. Mhm. Euh, di sant nag euh, la plateforme de la fédération les Linguères de l'émergence. Mhm. Euh, ku ci nekk turum ak santam. di wax ne ñoom ñooy sama doole. ndax benn loxo mënul tàccu. waaye mënul raxasu mu set. mën nga leen rassurer ne projet yi ñu ngi ñëw ci kanam. waaw incha allah. il faut le président de la république. lépp luy projet programme luy jàppale jigéen ak ndaw. ah foog naa ni daw na ko indi. Mhm. li am solo mooy ñu boolu suñu bopp. Mhm. xam ne chaque mois on se cotise di natt six cent. te du ñu dem pale di ñaan paas. Mhm. du ñu dem ci ministre di ñaan paas. ñun ñooy dindi suñu tuuti di seeti wante di jàppalante foire privée sax ñun ñoo koy cotiser defal ko suñu bopp. mais nañu gën a jàppale. ndax jigéen amul doole. te am nañu jom am nañu fulla bu ñu gënee jàppale duggal ñu ci instance de décision yi. Mhm. wala yokkal ñu financement yi. Mhm. wala vraiment jàppale ñu ci les fonds perdus. Mhm. jigéen ñi gën a wane seen bopp. looy wax waa Bambilor. Euh, di wax ne sama commune la. nit ñu baax ñoo fa dëkk. mais dama bëgg ñu gëm seen bopp. gën a dëggal seen bopp ndax bu dee yow dañ la teg dara ngay wéet jooy bu maire bi ñëwee nga raamal ko ay tànkam bu wanee ginnaaw nga saaga ko kooku jaru ko da ngay wax li nga sentir li nga ni wax war a wax noo nga wax non ki nga bëgg danga koy wan doo ko ko wax mais monsieur le maire yow yaa ma ñor boo wéetee daggal ko saaga parce que la muy def neexu la bien mieux nga maandu ci li muy def te la ngay def mu nga nekk loo gëm mhm. nga sax ci mhm. ba mu xam ne lii kat mooy yoon mhm. ngeen ànd te yàlla tax su mënul nekku ne xam nooy def yaakaar naa ni waxtaan nañ ci lépp am na loo xam ne bëggoon nga ko wax te laajuma la ko lan la <laughs> wala daj na. waaw sant yàlla mi euh, nu mu tudd tout le temps dina am lu ñu bàyyi. <laughs> mais yoon du yem si benn. Mhm, incha allah di la sant. Mhm. di la gërëm waa mi FM. Mhm. ndax c'était pas évident ngeen jël ma comme invité. di sant samay waajur. ah di sant samay conseiller technique. lu mel ne Serigne Touba ak ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen. ah di wax ni ñi bëgg a plateforme bi. ubbi nañ leen suñu xol. ak suñu loxo. Mm-hmm. pour un Sénégal meilleur. jërëjëf jërëjëf. moom itam dañ koy sant di ko gërëm madame ndey Codé Ndiaye moom lañu doon dalal fii tey ci émission gox bi mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM dañ leen di jox dig daje beneen dimanche ak ci beneen invité incha allah.